ndax teewoon nañ fi daaw waxtu bi ñaanoon ne yàlla nañ fi teew déwén ci jàmm ak jàmm yàlla bàyyi nañu fekk ci jàmm ak jàmm kon ñu sant yàlla si borom alhamdulilah rabbil alamin yàlla nañu bàyyi ñu teew ak ñun ñëpp kenn bañ a mën a ànd ak fekk ak tal bi tax niñ ko daan waxee rek bés bésub alquran la te bésu alquran mooy bésub jullit yëpp kuy wax ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bés bi sa bés la comme bésu alquran lañ ko tuddee kon yàlla defa baaxe waa Scat Urbam rawate na eh, koñ bi yàlla def ñu jagleel leen bés bi ci seen pak bi waaye jullit yépp ko bokk te barke alquran làmm na lépp ndax buñ seetloo ba mu wàccee ci màkkatal mukarrama aaye ba fu njëkk wàcc eh, alquran jooju moom la sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi doon jàng jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa amul lenn lu mu ca boole woon diiru bi mu fi nekkee alquran jooju moom la joree ba léegi xanaa li manki jullit yi rek mooy gëm ga nga xam ne ñooña la ko noona gëmee woon ñun gëmee uñ ko ko waaye buñ ko gëmee woon noonu rek doy nañu sëkk ñun mooy dusturul alamina mooy dusturul muslimin kon alquran jooju moo tax ñu dajee fi tey ñu am ci daara ji ñi fi jàng am ci ñoo xam ne mokkal nañ téere boobu ansaaril xay bi mën nañ dare baqara ba bi rabbi naasi tari ko mokkal ko te doon al yu ndaw yoo xam ne masooraguñ kon looloo tax ñu woote yi wow dajee fi pour bégalee xale yooyu bégalee ko jullit yépp dañ ko daan waxee rek nag kon pàkk yépp yem pàkk yépp benn la waaye pakk bi nga xam ne dañ ko def jàkka bokkul ak pàkk bi nga xam ne dañ ko def lan douche toilette bokkul waaye yépp pakk la boo amee sa kër terrain bi yépp fu la neex julli fekk def goo fa dara waaye boo xaseera dina fii toilette la fii jàkka la ca jàkka ja ngay jullee am yiw toilette ba boo fa duggatee dootoo sañ jàng alquran kon nag pakk la koy couleur la koy jox wëlër mooy nit ña fa nekk rek daanañ ko wax fii benn woykat ne wa ma faddala al arjaa illa rijaluha wa illa fala fadlun li turbin ala turbin amul benn pàkk bu gën moroom ma lu dul ña nga xam ne ñoo fay teew difa def lu yàlla santaane tax pàkk ba am nga neel moo tax ñu wax ne pàkk bee pàkk yépp fa yonent bi sallallahu tëdd moo fa gën lu ko ko may mooy xayrul alamin kon nag tey dañuy wax ne fii suñ pàkk bi fu dul fu ñu jàngee alxuraan rek ci moo la gën tey fii ci Scat Urbam fu dul fu ñu jàngi defee lii rek pàkk bii moo la gën mbedd bii tey kon nag ñu bàyyi ci xel ñu ànd ak nag aadabu tilawati alquran alkarim ak aadabu istimaa alquran ni ko xur suñ borom waxe ci alquran ne wa ida quri alquranu fastamiu wa ansitu laallakum turhamun fu ngeen fekkee fu ñuy jàngee alquran na ngeen déglu ànd ak teewlu ndax yàlla wàccee yërmande ci yéen te bu ko wàccee ci yéen mbooleem koo xam ne xam nga ko wala nga jege ko rek yërmande day wàccaale ci yow kon ñu bàyyi ci xel ñi nag sant ñëpp xam na léegi foofu dañuy jox suñu najaay alaaji Mor Tidiane Niang mu ñaanal ñu ubbil ñu ni mu ko daan defe bu ko defee incha allahu taala ñu daal dugg ci liggéey bi waaw ndax wax ji jarul guddal ndax tey xale yi ñoo ñu fi indi kon ñoom ñoom la ñu war a déglu xanaa rek di fedd li nga xam ne Cheikh Ahmad wax na ko mooy pàkk bu ne la fa nekk moo koy jox ja ak martaba kon tey pàkk alxuraan a ngi nii palaasu jëriñukaay a ngi nii ni mu ko waxee itam ci place bi nga xam ne bi mooy masjidu rasul tey di julleekaayu yonent bi sallallahu alayhi wa la jiitu jàkka ji fa nekk ñen ñi di ko tuddee ab weerukaay tàndarma ñenn ñi di ko tuddee góorukaayu gëléem kon tey pla nekk ak yonent ba ca place ba moo jox place ba valeur kon nag tey fii mooy place valeur bi tey ci kàttanu yàlla ñi nga xam ne ñi ñoom la yàlla nar a baaxee ñëpp yàlla dana leen fi indi te bu ñu fi ñëwee itam yàlla kese moo leen fi indi bu ñu fi jógee set wecc ak bakkaar ak bépp gàkk-gàkk yàlla na ko yàlla defee noonu kon ñu ngi ñaan mbokk yi ñu ànd ak teey ak dal ak teewlu comme ni ma ko waxee rek jëru mooy guddal wax ji di wax ne nañ bokk jàng faatiha nañ bokk jàng faatiha ayatul kursi yu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 di leen baalu xaq di leen baal xaq di leen dalal jàmm comme niñ ko defee niñ ko daan defee ci at yi yépp muy daara ji dafa baaxoo euh, buñ jàngee ci at mi ba at mi jeex dafa am xale yi fi nga xam ne ñoo doon jàng am ñoo xam ne nii yàlla dogal na ñu wattu téere yàlla bi ñooñu nag lañ defal bis pour bégalee leen ko ñépp xam nañ ne jàng alquran lu metti la su ko defee ne kon xale bi nga xam ne yàlla dogal na mu nekkoon ci daara ji di jàng ba euh, bis yàlla dogal mu mokkal alquran euh, dana jaadu ñu ndokkeel ko waaw pour mu ñaax ñeneen moroom yi nga xam ne ñoo ngi ci biir daara ji comme niñ ko doon defee rek ñi nga xam ne ñoo mokkal ñoo moom bis bi mais du tere danañ tànn ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi ci biir daara ji ñoom it ñu gunge leen ci bis bi ñoom barkeelu rek lay doon waaye ñii moom bis bi mooy ñi nga xam ne jàng nañ ba mokkal alquran war a jot seen neexal ren war a jot seen diplôme ñoom moom bis bi kon dañ ciy dugalaale ñeneen ñi rek pour ñu euh, barkeelu leen ñu barkeelu ci bis bi programme bi noonu la nar a tëddee incha allah euh, comme niñ ko waxee niñ ko xamee daara ji jànguñu alquran kese ñu ngi fiy jàng yeneen xam-xam yi ñooñu itam danañ leen dugal ci biir incha allahu taala ñu participer kon du ñu def lu dul dugg ci liggéey bi heure bi jot na macha allah. liggéey bi ñoo ko nar a ànd ak suñu euh, rakk yi ñoom Cheikh Omar Badiane ñoom Abdoul Aziz Oustaz Babacar ak euh, Oustaz Malick Gueye mais balaa ñoo def lenn dañuy jox euh, suñu rakk Thierno Yahya Ly Niang mu ubbil xale yi di fàttali na Thierno Yahya Ly bis bii ñu defal xale yi moom jaaroon na fi ba jotoon diplôme boo xam ne mooy wane ne mokkal na alquranul karim ba mu ca jógee moom bàyyiwul dafa continuer di jàng téere xam-xam yi muy téere yi nga xam ne mag ñi moom lañ doon jàngale fiq luga ak naxu waaye yemu ca dafa boole di jàng franco arabe euh, ba yàlla dogal na ren ji la doon def shahada ibtidaaiya mooy certificat ci français ak arab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ñu defal leen ñaan jiital ci sunu sëriñ Cerno Ahmad Nasiru li muy borom kër gi ñu jàkkaarloo amoo jàkkaarloo ak jàkka ji di set ci Cheikh Cheikh Hadj Omar al xam ne bokk na ci ñi nga xam ne ñoo tax jumaa ji taxaw fii moom moo njëkk wax ne boobu jàkk rek dañ doon julli rek ci 2010 conférence di bëgg a am nii bésu àjjuma fekk conférence boobu samedi lañu koy def ci àjjuma ji bi mu jullee timis bu pare mu woo ma ma ñëw mu ne ma dafa am lu sama xel nekk fii mën nañ ko julli juma ndax juma yi nekk fii ci koñ bi bi ñu gën a jege mooy jumaa Scat Urbam bi bu mag bi te léegi dafay fees ba ci tali bi mu ne bi ci topp xanaa bu ñu dem fële ci marché ba ci Grand Yoff wala Konachap walla fii ci aslem Grand Yoff mu ne yëpp day fees te fii lu ñuy war lu mat ñeenti mbedd ba juróom amul jumaa léegi loolu moo ko wax fii ma ne kon da koy wax nit ñi rek bu fekkee rafetlu nañu ko ci ëllëg di samedi boobu sax moom dox jafe na ko waaye soox na ba ñëw toog wax ko ñëpp rafetlu ko kon kooku bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko fondement lu jiitu loolu it bi nga xam nekkagul juma boobu jàkk ji melagul nii biñ fi commencé julli rek la woote woo koñ bi yëpp ñëw mu ne leen nii jàkk ji mel ni kër yi mel noonu la jàkk ji bara mel man nag sama participation mi ngi nii lu ngeen ci def ngeen laaj ma su ma amee joxe su ma amul ñaan kon ba mu mel nii muy Thierno Nasirou li kon ñu defal ko ñaan ca fa mu nekk ci barsaq yàlla fekk ko fa ak yërmandeem ak ki nga xam ne moo ñu doon jiite muy Seydi Sidi Si dëkk ca Fuuta rafet alquran lool te mën a jàng lool julli gu teey moom it jiite nañu fi ab diir ci at boobu moom ñu jëlee jumaa ji rek ci la génn àdduna moom it ak suñ dëkkandoo bi nekkoon fii ñu koy wax Cerno Mariam Diagne mooy kër gii moom it njëkk def participation lañ ci jàkk ji kii fi njëkk def participation nag mooy alaaji Koso Jaxate te moom it génn na àdduna moom it ñu boole ñu defal ko ñaan li ki noonu soxna Ramatulaay Sarr di soxna su baax soo xam ne moom it jàkk ji rek moo doon itteem ñooñu ñëpp ñu boole leen defal ñaan ak ñi nga xam ne sax tudduñ leen li ki noonu Abdoulaye Yaqin Diop ci mbooloom jàkk ji la bokkoon moom itam ñoo ñëpp ñu bokk leen defal leen faatiha benn yoon salaatal faatiha qul huwallahu ahad fukki yoon ak benn tëjee ko salaatal faatiha jaamoo ko yàlla def ko adiyatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ñaan mbokk yooyu yàlla na yàlla beesal yërmande ci ñoom bismillah bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ñu ngi nuyu suñu mbokk yi fi toog yëpp suñu papa ak suñuy waajur yi góor yu jigéen ñu ngi nuyu yëpp di ñu commencé ci tari bi rek incha allahu taala xale bi njëkkoo mooy mo Fadlu Ngom di doom ci Mamadou Ngom ngoom soxna Faatumatu Gay Caam dëkk Touba beneen xale bi di Ahmad Ka di doom ci Abdul Ahad Ka wala soxna Maam Sila Seck dëkk Touba benn xale bi ñu wax Serigne Modou Dieng di doom ci suñu papa Babacar Dieng wa soxna Fatimatu Silla dëkk ñaari tali Ahmad Seck na jege si incha allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول ألا نؤمن لرسول حتى يأتي أحيانا بقربان تأكله النار حسبكم صدق الله العظيم ما شاء الله yàlla yàlla barke alxuraan alkarim bi kon ñu jàll ci keneen ku ñuy wax Mouhamed Seck di doom ci Omar Seck rahmatullahi alayhi wa soxna Mati Ñang dëkk Mbuur Muhammad bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته رحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأ يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم حسبك صدق الله العظيم بارك الله فيك إبراهيم الصو نجح إبراهيم الصو Ahmada Badiane Ahmada Badiane di doom ci suñu papa suñu sëriñ Alxaaji Ahmad Badiane wa soxna Khadija Diop dëkk Parcelles Unité 26 Alioune Badara Alioune Badara Diaw di doom ci Cheikh Tidiane Diaw wa soxna Hawa Diop dëkk Kaolack Mouhamad Seck di doom ci Salih Seck wa soxna Mame Fama Niang dëkk Konachep bismillah أعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم الحمد لله الذي وابني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن رب ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء Rob الأبصار حسبكم صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله يعني يا ربك القرآن الكريم إبراهيم وصو نجيكسي maam Abdou Sylla Yaas Top ñu jàll ci Ibrahima Sow di doom ci Babacar Sow wa soxna mam Majeng Sow iskat irbam Ibrahim bismillah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 فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون حسبك صدق الله العظيم جزاك الله خيرا بارك الله فيك جولي جن جولي maam Abdou Sylla di doom ci alxaaji Baara Sylla wa soxna Mariam Touré dëkk Arafat beneen xale bi ñu koy wax Abdou Latif Seck di doom ci Thierno Seck woo soxna day màggat Seck dëkk Touba Cheikhouna Sakho di doom ci Serigne Alioune Sakho woo soxna Koumba Diouf dëkk Saloum Kër Soose bismillah jëwlay jéen a jeges أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

خلق أنفسكم صدق الله العظيم macha allah yal na yàlla barkeel alquran bi Mouhamed Sylla na jege si jaw di doom ci alxaaji jaylaana jaylaani jëng wa soxna mbayang jàllo skat irbam mama fatimatu ba di doom ci cerno isa ba wa soxna aïchatu ba cité xaadim bismillah الشيطان الرجيم macha allah yan na yàlla barkeel alquran bi fàllu saw jege si jibril sëy yi ñetti ñeenti yi nga xam ne ku ci njëkk mooy Mouhamed Silla di doom ci Baara Silla wa soxna Amina Silla dëkk Arafat beneen xale bi di Abdullahi Guèye di doom ci Papa Guèye wa soxna Fatou Guèye dëkk Mali Bamako beneen xale bi ñu koy wax Baye Cubb Seck di doom ci Salih Seck wa soxna Fama Niang dëkk Konashop Hamadi Ndiaye di doom ci Modou Ndiaye wa soxna Soukay Ndiaye dëkk Mbacke Jolof Pape Alla allah yal na yàlla bàkkee alquran Sow na na ñëw Pape Alé Sow di doom ci Xuseynu Sow wa soxna Aïchatu Sow Scat Urbam Jibril Sey di doom ci Abu Bakrin Sey wa soxna Aïchatu Sey Scat Urbam bismillah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 ربكما صدق الله العظيم jërë ngeen jëf yal na yàlla barkeel alquran bi Abdoul Aziz Diong la jege si Pape Alé ñaari xale yi bëgg tari kenn ki mi ngi tudd Pape Alé di doom ci Mouhamad Seck wa soxna Zeynab Seck dëkk Grand Yoff xale bi ñu koy wax Ibrahima Cissé di doon ci Mouhamad Cissé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 إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يعفى ونيسرك لليسرى حسبكما صدق الله العظيم ما شاء الله يعني يا باكي القرآن بي مود السفال يا سب عبد العزيز جونغ di doom ci abu hamadi jong wa soxna xawa mbay skat irbam saalix jàllo di doom ci muhammad jàllo wa soxna fatimatu bari skat irbam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء وصدق به أولئك هم المتقون عملوا ويجزيهم أجرهم ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون حسبكما صدق الله العظيم ما شاء الله yal na yàlla defal leen barke alquran xalimatu ñaari xale yi nga njëkk mi ngi tudd Modou Assou Fall di doom beneen xale tudd ala papa Alioune Fall di doom ci Baye Sele Fall wa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعض ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد أجوركما صدق الله العظيم ما شاء الله يعني يا باكا القرآن بي دام نيان دام نيان نجيس xalimatu saadiya fall di doom ci alxaaji mayoro fall wa soxna xadijatu ñang iskat irbam fatimatu caam di doom ci muhammadu caam wa soxna aminata caam xaar yàlla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تبصروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان حسبكما صدق الله العظيم ما شاء الله tari bi neex na lool yal na yàlla barkeel ali yu bari na jege si ñeenti ñetti xale yi nga xam ne ñoo bëgg tari ki ci njëkk mi ngi tudd Daam Ñang di doom ci Serigne Ibrahima Ñang wa soxna Faama Ñang dëkk Thiel Jolof keneen ki di di Abdoul Aziz Moulay Diop di doom ci Cheikh Tidiane Diop wa soxna Ndey Caam dëkk Amérique Moussa Diaw di doom ci Omar Diaw wa soxna Fat Sow dëkk Afe Jolof من الشيطان الرجيم قل يا الله الذي يتوفاكم وأمرت أن macha allah yal na yàlla barke alquran bi Ahmed Ba na jege si. Ali Bari di doom ci Lamarana Bari.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 المجروح في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون حسبك صدق الله العظيم ما شاء الله القرآن gi neex na lool waaye yal na yàlla barkeel ko Aïchatu Gassama Aïchatou Gassama mbokki ñaan yi di bëgg tey ki njëkk mi ngi tudd Ahmad Ba di doom ci Xaadim Ba rahmatullahi alayhi wa soxna ma Asta Diaw dëkk Kawlax beneen xale bi Mouhamed Mouhamedul Amin Niang di suñu sëriñ al imam Mouhamed Niang wa soxna Kuna ñang dëkk Thiel Ousmane Cissé na jege si bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنالك الله خلقا yàlla na yàlla barke alquran bi ñu ci alxaaji muhammad fóode wa soxna gasama iskat irbam incha allah barakallahu fiik Mouhamad Dramé na jege si. Ousmane mbokk yi xale bi gis mu tari mooy Ousmane Cissé di doom ci Ibrahima Cissé wa soxna Aïchatu Cissé dëkk Casamance bismillah. A'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim. Wa man azlamu من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ادخلوها فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم حسبك صدق الله العظيم ما شاء الله عثمان كان يلبك القرآن بك شيخ جاي يستوب Mouhamad Darame di doom ci Mouhamadul Amin Darame wa soxna Xalimatu Ba Grand Yoff Bàcc Dieng di doom ci Baydi Dieng wa soxna Ndey Asiyatu Njaay ñaari tali bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود ثمود فأهلكوا بالطاهية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام xasbukuma sadaqallaahu allah yal na yàlla barkeel alquran gi fatimatu sekk na jege si kalsum ture xadijatu ñang cheikh mbokk yi ñi nga xam ne ñoo bëgg tari ki si njëkk mi ngi tudd cheikh ndiaye di doom ci baay baara ndiaye wa soxna aminata mbay dëkk walax keneen ki di omar ñang di doom ci alxaaji mbay ñang wa soxna kumba juuf dëkk Thiel keneen ki di mouhamadul moustapha ndour di doom ci suñu pap mouhamadul amin ndour wa soxna aïchatu gaajo dëkk HLM Grand Yoff bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله 哇！ ويهديكم صراطا مستقيما حسبكم صدق الله العظيم ما شاء الله يعني ذاك القرآن بي Fallou Mbodj Fallou Mbodj na jege si Fatimatu Seck di doom ci Mouhamad Seck wa soxna Zeynabu Gueye HLM Grand Yoff Umm Kalthum Touré di sox di doom ci Alxaaji Ousmane Touré wa soxna Daado Touré HLM Grand Yoff Xadijatu Ñang di doom ci sunu sëriñ Alxaaji Cheikh Ñang wa soxna Bintu Ñang Scat Urbam bismillah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 والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجود إن عذاب ربك لواقع ما يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون حسبكم صدق الله العظيم ما شاء الله barakallahu fi kun Maxtaar Touré na jege si yi ñetti xale yi nga xam ne ñoo bëgg tari Abdourahman na jege si ak Moussa Diop mbokk yi ñetti ñi nga xam ne ñoo bëgg tari ki si njëkk mi ngi tudd Fallou Mbodj di doom si Idrissa Mbodj wa soxna Marème Mboup Marème Mbodj dëkk Amérique Mouhamad Fall di doom ci Serigne Fall wa soxna Sofiatou Sakho dëkk ñaari tali keneen ki di Mouhamadul Moustapha Niang di doom ci Omar Niang wa soxna Fat Sey dëkk Medina Kawsara bismillah أعوذ الشيطان الرجيم بسم الله حسبكم صدق الله العظيم ما شاء الله yàlla yàlla barke alquran bi Omar Niang Moussa Cissé nañ jege si Abdourahman Lo di doom ci Malick Lo wa soxna Ndey Soxna Cissé Scat Irbam Moussa Diop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 وقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه ونراه قريبا حسبكما صدق الله العظيم ما شاء الله بارك الله فيكما xale yi di bëgg a kenn ki mu ngi tudd Omar Niang di doom ci góor a Niang wa soxna Daba Niang dëkk Madina Kawsara beneen xale bi mu ngi tudd Moussa Cissé di doom ci alxaaji Mbay Cissé wa soxna Fama Cissé dëkk Maris beneen xale bi mi ngi tudd Mouhamad Ñang di doom ci alxaaji Ñang wa soxna Mati Ñang dëkk parcel bismillah أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون وأما الذين كفروا فيقولون وما يضل به إلا الفاسقين حسبكم صدق الله العظيم ما شاء الله yal na yàlla barkeel alquran bi Mouhamed Diouf Issa Goudiaby di doom ci Abou Bakrin Goudiaby wa soxna Dior Seye Scat Urbam Babacar Gueye di doom ci Pape Mor Gueye wa soxna Thiané Niang Scat Urbam Mouhamadul Amin Thiam di doom ci Mamadou Thiam wa soxna Aminata Thiam xaar yàlla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم تسبح لله ما في السماوات ma صدق الله العظيم ما xalimatu Touré na jege xadijatu ba xale bii di bëgga tari mi ngi tudd Mouhamad Diouf di doom ci Idrissa Diouf wa soxna Ayda Diop dëkk Parcelles bismillah الشيطان الرجيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني وعلمتني hasbuk sadaqallaahu al-aziim macha allah barakallahu fika yal na yàlla barkeel alquran bi yal na si yàlla teg xam-xam bu barkeel ahmad dieng ahmad dieng na jege si habib ka xalimatu Touré di doom ci alxaaji Ousmane Touré wa soxna Mbayang Bàccili HLM Grand Yoff xadijatu ba di doom ci alxaaji Ahmad Sire Ba wa soxna Anta Sarr Scat Urbam di doom ci alxaaji Abdullahi Diouf wa soxna Nogay Seen Scat Urbam bismillah

وإذا الرسل أقتت صدق الله العظيم حسبك xale yi di bëgg a tari kenn ki mi tudd Ahmed Dieng di doom ci Ibrahima Dieng wa soxna Jeynaba Diop dëkk Scat Urbam beneen xale bi mi ngi tudd Mara Abbas Gueye di doom ci Maam Góor Gueye soxna Penda Gueye dëkk Louga beneen xale bi mi ngi tudd Habib Ka di doom ci Modou Ka woo soxna Joxa Ka dëkk Arafat bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله bokkuñ sadaqallahul allah barakallahu fiikum yal yàlla barkeel alquran bi yan si yàlla teg xam-xam bu barkeel kon Mouhamad Diop na jege si waaw mbokk yi ñoo ngi leen di di nuyuwaat di leen ziyaara di leen balu xaq comme ñu ko waxee woon ci commencement bi rek conférence daara El Hadji Cheikh Niang ñu koy def at bu jot euh, di ndokkeel xale yi nga xam ne ñoo euh, wattu alquranul karim léegi ñi tànn ci ñeneen ñoo xam ne ñoo leen di gunge macha allah xam naa xufaas yi danañ dugg si léegi ñi bàkk leen euh, su ko defee ñi commencé woo leen ñi tari ñi doon tari ñii ñëpp ay dañ doon participer rek waaye ñi moom conférence bi dëgg dëgg dëgg commencé guñ ñooñu ci kanam incha allahu taala danañ euh, euh, dugg si léegi bu ñuy paree incha allah. Moustapha Tunkara di doom ci Abdullahi Tunkara wa soxna Aminata Koulibaly HLM Grand Yoff Alxasan Diallo di doom ci Mouhamadul Amin Diallo. wa soxna abi kumba ba iskat irbam alpha bari di doom ci muhammadu bari wa soxna jam bari dëkk cité Konachap bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم تمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم نجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ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 jëf amuleen yaraange man de ñii naa leen man de bëgg naa leen lu tol ñi nii wattu tere Yàlla te xeef ak fa ñu jëm dund ak gudd fan moom lañ leen ñaanal te xee fi ak fa ñu jëm dund ak wér ak gudd allah jërëjëf comme nañ ko waxee rek waa ñun ñoo nekkoon suñu xufaas yi war a génn ren ñoo ñu bàyyi leen ñu noppalu ba ci kanam rek incha allahu taala comme niñ ko waxee ñoom ñooy borom conférence bi ñoom ñoo moom conférence bi ñi fi jotoon jàll ñëpp ay barkeelu rek lañ leen waaye ñoom ñoo moom conférence bi ci kanam incha allah danañ ñëw teew si ñoom tam euh, joxe kenn ku nekk joxe li nga man incha allahu taala. kon ñu continuer programme bi euh, xale yi di bëgg a tari kenn ki mi ngi tudd Mouhamed Diop. di doom ci Ibrahima Diop woo soxna Aïssatou Dieng dëkk Italie beneen xale bi mi ngi tudd Mouhamad Souare di doom ci Ahmadou Souare woo soxna Aminatu Souare dëkk Xaar Yàlla beneen xale bi mi ngi tudd Moussa Daabo di doom ci Jibril Daabo woo soxna Mbène Seck dëkk Medina bismillah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 الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا macha allah barakallahu fiikum yal na yàlla barkal alquran bi Abdoul Latif Cissé Alioune Ndiaye Marème Ñang di doom ci alxaaji Mamar Ñang wa soxna Ndey Mati Ñang iskat irbam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللهو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابترى وراء فأولئك هم الوعدون حسبك صدق الله Manga na jege si mbokk Mouhamadou Mbaye macha allah xale yi di bëgg tari kenn ki mi ngi tudd Abdoul Latif Cissé di doom ci Mouhamed Fodé Cissé wa soxna Adja Mbayang Samb dëkk Scar Urbam beneen xale bi mu ngi tudd Malfi Diaw di doom ci Cheikh jaw wa soxna Jeewo Diaw dëkk Kaolack beneen xale bi mu ngi tudd Aliyu Ndiaye di doom ci Mouhamed Ndiaye wa soxna Fatimatu Ndiaye dëkk Amerika bismillah بالله من الشيطان الرجيم وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الله أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما لو كان للأوابين غفورا حسبكم صدق الله العظيم ما شاء الله بارك الله فيكم yal na yàlla barkeel alquran bi Mamadou Gaye Babacar Manga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 فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام ترى القوم فيها سرعا كأنهم كأنهم أعجاز نحل قالية حسبكم صدق الله العظيم ما شاء الله بارك الله فيكم Maxtaar Touré na jege si Euh, mbokk yi ñoo ngi leen di nuyuwaat di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. comme dañuy euh, dugg ci programme bi directement boobu léegi ñi ngi ci woon sax mais ñi doon dem ñëpp ay gunge la ñu woon dañ doon gunge ñi nga xam ne rek ñoo wattu alquranul karim kon mbokk boobu toog ci kaw mooy suñu première ki ñu war a jël incha allahu taala mu euh, jàngal ñoo alquran mais moom du bokk ak xale yu ndaw yi xale yu ndaw yi bu ñëwee dañ leen bàyyi ñuy jàng directement mais kii bu ñëwee dañ koy laaj ci ay barab ci alquran ji mu tari ko su ko defee euh, ñi laajaat ko feneen euh, lu ñu temps bi may rek incha allah ñu jël ko kon Mamadou Gueye moom lañ woo noonu Mamadou Gueye di dem ci eh, imam Thierno Gueye eh, wa soxna Aminatu Gueye Mamadou Gueye mi ngi dëkk ba Linguère Mamadou Gueye ba baada aoudu billahi min asheytaani rajim comme ni ma ko waxee sànq xale yi ndey bu ñëwee dañ leen bàyyi ñu tari librement mais yow bu ñëwee dañ lay laaj sama premier laaj bi ma la bëgg a laaj bada audu billahi min alsheytan arrajim wa id qaala rabbuka lilmalaikati inni jaacilun fi lardi xalifa bismillah audu billahi min alsheytan arrajim وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء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 هم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني قال ألم أقل لكم إني يعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا يمسكوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين حسبك maam Modou Gueye duma la bàyyi te laajuma la beneen place baada aoudu billahi min alcheytan arrajim lilladina axsanu alxusna wa ziyaada audu billahi min alshaytani alrajim lilladina axsanu alxusna wa ziyaada wala yarhaqu wujuhahum قتروا ولا زلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم فلم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيه يا نا تعبدون حسبك Mamadou dama lay bàyyi ak Oustaz Babacar Sène bëgg ceeb moom mu la continuer yow ci laaj yi incha allah. Mamadou Seck Mamadou Guèye Gaye boobu ñu ngi la war a laaj suñu troisième laaj. ci suratu saba baada audu billahi min alsheytani irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillahi alladi lahu ma fi alsamawati wa ma fi lard bismillah audu billahi min alsheytani irrajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعة قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعقب عنه مثل مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين حسبك wa sadaqa allahu alazim sadaqa allahu alazim macha allah xale boobu doon jàng alquran moom mooy Mamadou Gaye dëkk ba Linguère